jàmm baax a baax. alhamdulilah tey nag dama la seetsi woon ndax dama am benn soxla ko jàmp kaa bu sax ma ne nag naa ñëwaat rek comme d'habitude ni ma fi daan ñëwee di la diis samay soxla nga di ma ci jàppale bu baax a baax ma ne nag kon tey pourquoi pas tey tamit ma ñëwaat rek mais tey nag dama am ak sama jëkkër comme moom nekku fi woon dafa voyagé woon day dóor ba ça va na nga def sa yitte day doon sama yitte sa bëgg-bëgg day doon sama bëgg-bëgg loo bëgg suba ba ngoon te amoo ko fii da nga ñëw mais yow saa boo fi ñëwee sa aajo faj ndax yow man ak yow démb nga woon tey di soog a ñëw. dama bëgg a wax sa soxla si kàttanu suñu borom ma def ko man. loolu duma bett ci yow tey nag soxla bi ma am mooy sama jëkkër dafa bëgg a nekk président njiitum réew mi loolu la bëgg. waaw looloo tax nag tey ma jóg ànd ak moom ñëw ba fii ndax xam naa ne loolu su ma la ko waxee yaw li nga mën ak lu nga mënul lépp di ko ci def mm-hmm. te man moom instant yi gisuma dara lu dul dugg biir palais gee toog fa nekk première dame. loolu doo nga nekk ci sama xol bi nekk ci sama xel bëgg na nga jàppale ñu loo mën rek nga defal loo ma laaj lu mënti toll dinaa ko indi. Hmm? li nga bëgg diis na doon président néew ma la doo ko doon de waaye dana metti te man maay ki ngay dugal bii ba nga yow la doog loolu rek moom laa bëgg parce que man bitim réew laa nekkoon. su ma nekkee foofu di seetaan télé Sénégal yi ci damay gis nit ñi di ñaxtu rek te man aw lu dul sama dëkk lépp lu président war a am man am naa ko ba ma sëkk bu fekkee xaalis moo doon dugal nit pale kon du fi ñëw man loomal ma laaj pour ma dugg fii pale jàppale askan bi jaral na mu ko incha allah waaye nag man dama am ay àndandoo. te du fii nga ngay waxtaanee dama bëgg ñu dem sama àndandoo yi fañ nekk ñu toog ñu wax ma ma wax leen ñu xool ni ñu koy defee jàpp ngeen ni seen aay dina faj te su ma waxtaanee ñoom man maay ki lay samp te su ma la sampee kenn du nga yëkkati jugee ñu dem. nañ dugg palais na seen xool sedd yi. comme ni ma ko waxe fii mooy daara ji mu waay di wut fii nga ko fa seen sama gaa yaa ngi nii ñu ñëw sama àndandoo mais mu tuut ma waxtaan ak ñoom. Hmm. jàpp ngeen yéen seen aajo faju na ñoom nee nañ dinañ nga samp waaw te ñoom ñoo ngay aar si zahir ak si baatin kenn doo mën a dara te ku jug si yow mooy daanu ñoom ñoo ma ko wax te amuñu caaxaan te man ñi aw ma caaxaan waaye nag nee président bi nga bëgg a doon foog nga indi ma bakkan. non bakkan moom yomb na. xar yaa ngi fi nag yeeg muus yaa ngi fi lépp ay bakkan la kooku moom du benn problème. bakkan. kañ nga ko soxla tey wala suba. bakkan doomu aadama ngañ ma wax. lan. gune bu amul xam-xam. astafurlah. foo koy taf. gis nga fii boo fi duggee. neex da fay am naqar da fay am fi mako mom te ñi ñoo may jiital ñoom ñoo may teg si yoon bi may jaar. ya bëgg doon président. xamna ni ku am xam-xam nga te xam-xam bu sel nga yor wante suma serigne li nga laaj reyna de bakkanu nit man julit la pale de bëgg naa fa dugg trop trop trop trop. waaye nak bakkan non bakkan ëpp léegi lenn dong la lay ñaan jima a naxante ak ñoon fekke mën nga ko changer defal mako leneen sax waaw ma jël sax mais bakam ah lool mom ko na lool du ko def ma def musul ëpp yow palé gi nga laaj mo gëna reuy bakkan yo xanaa xamoo ko palé du ay caaxaan ta man nak bu fekke sama teraanga gi nga mën a raxañ ak ko yi mën a wër nit ñi di ma tudd naan premier dame premier dame looloo la naqari moo xajul ci yow ngay accepté kon yow nga nangu bakkan bi yow su laa doon fukk ma jox ko ko. xam nga wenn affaire. te yow yaay ki koy joxe. war naa teen ba eh, kineri. comme naatoo comme naatoo haa nder. eyi eh, comme naatoo haa nder. annene ka naatoo haa nder. a wonaa juul. eyi eh, comme julɗo. ma xam nga benn affaire président du cuune moo koy doon doo tëb tëbee doon président te baa nga koy xam nga dem ba dugg benn bakkan doon ngaa laaj. su ma raajoon kees bakkan nooy def ku nekk jaar na fi koo xalaat sa àdduna jaar na fi koo dégg ñuy wax turam sa kaw jaar na fii ma defandee ñoom ay bagages yow nag sa soxna si moo tax ma bëgg a jàppale mais du keneen. xoolal man pare naa pour jox la 60 millions pare naa pour joxe 60 million xoolal moo ma bakkan ma xamal benn affaire xaalis doy ma ko dara xanaa xamoo ma en ah, parce que sama pukus bii nga gis yow sa bopp mën naa laa jënd jënd téeméer nit yu mel ni yow doy ma dara xaagis ñoom ngeen bëgg ñoom deret ngeen bëgg te doon président foog nga indi ma bopp nit ma def si nga ma siy def man maa koy liggéey du ma ko jox ma sàmb du ma ko jox ma demba te su nga waxee yow yaay kii tok ba heure bu la neex nga ne bëggatuma doon président man maa ko wax xalaat ci bu baax bis bu la ñoré nga ñëw wuyu ci ma te su ma jàppee ba bàyyi di nga xam bu baax man na la tey non non non non bakkan ni déedéet non bakkan ëpp na bakkan ni nak duggu palé yow mbaa nga yor bop la la bëgg nekk président. madam madam xéen nga bu baax li ngay xalaat yow bakkanu nit. bakkanu nit man ma indi ko fii bakkanu nit. yow yaay ku koy indi su ma la waxee di ko indi rek takk ko téere war ci sa warale ko ci sa bopp boobu takk ko ci sa ndigg te xam na dañ ko def foofu rek laa yem ak yow a dee. waaw kay sëriñ yoonu jàmm. incha allah rabbi te bis boo ngeen indi. indi ngeen ko bis guddi àjjuma. incha allah. 22h. nga bopp bi woo dugg si fii. bu dee quatre heures du matin sax dinañ ko indi. ñeenti fan nag gaa nga may. incha allah nga indi ma ko. dinaa ko indi. soo ko bëggee doon. dinañ ko indi. ci yoon baa ngi noonu. jërëjëf.